regarde Ramon, sax def ne t'énerve pas je t'en supplie calme-toi. pourquoi tant de méchanceté ay pas xamuñu def calme-toi. pourquoi pourquoi tant de méchanceté. calme-toi et comprends pas ce qu'il faut, s'il te plaît. je sais que c'est dur mais calme-toi calme-toi. Ah, ah. excellent Roméo. tu es la ñaata la la jox deux cent mille jël ko non yaa ko moom yow tam yaa tax sama business di dox wuyu ma dama nekk nii euh, di dem benn visite ok gérer ma booy nga contrôle ma garage bu baax a baax ma ñew ci kanam okay li de lañuy wax Samba alar yow sa jabar fukki deureum sax bu la ko ngay bëgg ray sa bop di may ay 200000 yow arrêtel ummi motax sama business di dox jàmbaarte ummi ak xarañtem motax tax Videolux bi nga bëgg mo mën la ko offrir yow ban Videolux nga ma mënal nit ñaar seen digënté amna lu ci nekk yow lo bëgg wax fofu ha dama ne la lu too xam da fekk yàggu da nga koo bëgg dalaa neex avoué ko. yow da nga man at ba ma juddoo dof sax juddu ci waaye lu taw a xam daa yàggu. Bintu wax ma appartement bi fu mu nekk moo gën sa coow lu bëri la nekk ñaata yoon laa la ko war a wax lan ngay déggee. fay da bay bëgg de yow de heure bi waroon nga tàlle leen lu may 200000 nit koo xam ne sa kër dara matul la nga may xajoon na ci sa yaay sax mu jëndee ko garab. neexul ba neexul te xaj ci yow. xale bi dafa nekk jàmbaar ba pare mën a liggéey tooy. waxagoo. yow li nga wax yow waxagoo su soxla di nga ci aksi ci li nga bëgg wax en tout cas man diine mayna ma takk ma ñent jabar yow do sax am yow ñaar benn sax dafa ëpp ci yow tax da ngay responsable góor gu am doole ab kàttan kar xaalis waay ni am da ngay dem nga takk ji ba fuk yow ak lu man di xew yow ku melni man mëno ko am man mécanicien la di gor pire la yow mayma sama jaamu gis nga yow takum ñaareel xam nga lu la ciy boole nga fekke fuñ koy takkee nga tok jëlee fa beñ ak jinjeer li mo la ci boole leneen boole wala ci it moom boo ñàkkee fayda ñak nga ko rek bintoy xoolalee da ngay noppé wala ma depp de man sama garage liggéey bu bëri ma nga fa di ma xaar okay? waaye yow ya mom liñ Elle est où Dans son bureau. D'accord, t'inquiète, je rentre, ok Comme ça, tu abandonnes. Hein Tu, abandonnes. Bravo..! Bravo. Bravo. Tu as une histoire Djily Mbaye nit

dem ba defar seen dund mu extraordinaire lenn képp kott dong la ci jàng yee boy lenn rek laa ci jàng que ni grâce ak détermination persévérance ak passion bu dëggu tuuti chance tuuti chance yee boy tuuti chance rek ak muñ boobaa mën nga mën nga réaliser sa rêve en réalité li nga doon jënd lépp ndeysaan. Jean Limar Alioune Jean pour ce putain de GE, pour ces femmes. Et tout ce que je récolte, c'est quoi De la haine, du mépris. Qu'est-ce que je gagne, moi Rien, que dalle. J'en ai ma claque. Je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Hé, hey, hé. Tu es fatigué.

Ça va aller. Ça va aller, va On va réussir. On va réussir. dañuy réussir dañuy réussir mais ci une condition cassée. condition cassé. nag ma jëlaata sa bagage te nga fi Si tu as ne gars yi mënoo Tu tu metti Tu bi tu fi Tu dafa am plus Tu la Tu dañ Tu nga Tu je ne sais pas si tu es un vais Je ne la nga terre affaire loolu tu la jëlal say bagage te nga ko Je ne nga pas si tu ni yow give up nga man Alioune gaynde de man man du ma nekk man range là tes affaires montre-le que tu es une héroïne numéro cité sànq ça que un waroo tuti, waroo nang ko le tutel waroo don ko doyati boy jay kete sax nga gem sa bop ndaw ñu bari ñi bay parce que dañu nango gem sen bop duñ gem sen bop xamuñ sen bop nekkuñ di gem sen bop affaire li nga am da koy gem nga nekk ci nga liggey nga am persévérance ak passion da ngay dem da ngay dem jay bu da ngay dem bu ma xool da ngay dem da ngay dem gëma sa bop tagal fi sa liggey tu ma dimbali jëlal sa bagage nga teg ko rangé waatal le bul de ce bureau je t'aime éperdument je t'aime énormément Quand tu ma la nangu ñu lay tu tu ma tout ñu lay m'as te Ne la dimbali dafa ko sa fais dafa ko sa Ne fais Monsieur et Madame Cham, la Sénégalaise de l'immobilier vous présente un magnifique appartement, deux chambres, salon très spacieux, avec une belle vue sur la mer. Là, vous avez une cuisine américaine, avec beaucoup d'espace, et un balcon, pour vos petits déjeuners en amoureuse. Là, vous avez un énorme salon pour recevoir vos invités et une vue sur les Almadies. On va passer à la chambre principale. Hein. Donc là, vous avez une vue sur la mer de ce côté, une vue sur la mer de ce côté. Et l'endroit le plus chic, c'est là. Idéal pour un tête-à-tête, -tête, avec une belle vue sur le phare des mamelles. Et là, vous avez la salle de bain puis mon make-up tout à côté, avec un beau miroir. <laughs> voilà. On va passer à la chambre secondaire, hein. c'est juste à côté. Alors là, je vais vous présenter la chambre secondaire. L'avantage avec nos portes... Pardon, madame. de là. Euh, 600 000 par mois. Ban Michel. Ah non, 600 000, c'est trop cher. C'est trop cher, Ben. 600 000, est-ce que mon six cent mille francs par mois awma loolu tamit bari ay jàmbat te nga gëm yàlla gis nga xaalis mënoo cee def lu dul lekk ci naan ci dëkk ci fu baax nit yi respecté la gisul fii bindu bëgg naa trop dëkk ci château yaa ngi dégg baax na ma la mais nit dangay dund par rapport ak li nga am ok awma six cent mille par fin du mois pour fay fii Oh lolo. ah Ousmane tu nga ils imaginer nga liggéey yi wàcc ñu ma mën laa ni mu waree gis nga yow vie bii nga mérité détends-toi bu ragal dara man vais la soutenir on est famille. Ah. Alors, ah, vous décidez quoi L'appartement est magnifique. On va le prendre. Parfait. On va aller signer. <laughs> Apparemment, la pêche n'est pas bonne ce soir. Ah les gens ne jettent plus rien maintenant. C'est à croire qu'ils se foutent le reste dans le filon. Les enfoirés. J'accepte ton aide. Je veux rencontrer ton gars. Euh, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Je ne veux pas finir comme toi. <laughs> Je ne veux pas finir comme toi. Alors, si tu ne veux pas finir comme moi, ne commence pas comme moi. Oublie ce gars. Fais quelque chose de ta vie. Tout ce que tu vois ici, cette saleté de barbe, ces rides de merde, c'est le résultat de ma rencontre avec la drogue. Alors, fiston, oublie ça. Oublie ça, fiston. Je n'ai même pas où cracher. Je connais personne ici. Je n'ai pas de travail. Bref, je me sens seul. Fiston, si tu ne veux pas finir comme moi, rentre chez toi. Rentre chez toi, fiston, Et rentre chez toi. Usman, fan ngay dem ak lan mo tax nga bëgg Usman, dem Usman Usman yeen ñepp bu ngeen demee bàyyi ma ci kër gi ma seen xel dina dal ba ngeen di nelaw comprendre na la bu baax a baax waaye dem mu pour abandonner la kër gi dina continuer di fi ñew di agn di reer ba sama heure de jot ma dem tëddi Ousmane di fa agn ci di fi reer si ma yow ak yow mooma ko gëna ndax Ousmane yaay sama taaw yow laa jëkk gis ci doom ci àddina tey Ousmane nga nar ne te loolu dara waralu ko du du sa jabar te Ousmane dama la bëgg a xamal ne la góor mooy samp kër waaye jigéen a yore kër yal na la yàlla dajalee nag ak jigéen joo xam ne dafa yore jikkoy walla jikko jikkoy acier jigéen dafa war di yërëm jëkkëram war jàppale jëkkëram waaye warul jël jëkkëram di ko dugal ci ndoxóor ndax Ousmane prison bee fess del bari na fa góor ño xamni jigen na len fa duggal de ndax dañ len yan lu ñu te te ñu Ousmane sa jabar place bi mu tok ci sama bir xol bi ah duma ne ken togu ci de way sori na ca ndax man bintu dafa melni pour man dama ko ëmb sama biir bi juróom-ñeenti weer waaye nag Ousmane ku sañul bañ sañe nangu soo xoolee xool ba xam ni dembee leen gënal maa ngi lay ñaanal fa ngeen dem fa yiw yàlla gunge dalal leen fa waaye nag Ousmane Ousmane àddina dafa tëradi de Ousmane àddina dafa tëradi de Ousmane te fay lu yaas metti na Ousmane soo demee ba nga xam ne metti na Ousmane dama lay ñaan bul nekk kay taxaw maa ngi dugg ci loo xam ne dalay indil leneen kër gi sa kër baay la te yaa fi taaw yaa fi taaw yaa war a taaw kër gi Ousmane boo demee ba mu metti bul am dara looy réccu Ousmane ñewatul dug sa kër bay gi ndax bës bo fi génné suma tejé buntu bi duma joxat doom adama ciabi ji té sa yoo dellu ci waté ci sa kër bay gi so ñewé dina la teg ci sama poj bi ndax lupp ndey lu mu lax lax lax Ousmane Taaw Ousmane Taaw lupp ndey lu mu lax lax lax yaay ji dina ci teg doomam Bintu Bintu laa la foo jëm nii Ousmane war nga sa famille ñoo la gënal damay dem. mais Bintou wax damay tabax appartement si kaw ñu toog juste un an après ñu je m'en fous de tes projets là la wax sama yoon say projet man bëgg soxlawuma góor bu faible ci sama wet. doyewuma dara nit koo xamante ne tu es irresponsable. Ousmane may ma sama baat. bu yàggee rek ci yow la loolay déglu may ma sama baat ma dem